maa lay ziar bu baax baax. waaw maa ngi sant yàlla bu baax di julli si yonte bi sant si way ñaari waajur xam nga waa adduna waa di waa Sénégal bu baax a baax a baax baax. c'est combat.

waaw benn defet la am benn waaye ma daan rek benn waa ju dee xamul dara booy loolu. kan la waa ji ah? dëkk parcelle moo daan. waaw xamul dara fanaa moo gën moo gën a bon ci mbëri moo ma daan quoi. ah pour mu daan la. la ma daanee moo daan ma. noonu ma daanee ko sax mënu daan ah. ñi tey bu ñu ko joxaatoon nga moom ah moom moo ma naan mais maa ko raw. mu ñu daan Bébé Diouldé arène ah, de. maa ko victoire maa ngi si 12 victoire moom 9 victoire la am. moo ma daan mais maa ko raw ah xoolatuma ko instant yii. combat euh, waaw. waaw rek. préparation yi ak ni muy rek ànd ak suma waa écurie ñuy liggéey ban dem yàlla suturaal ñu quoi voilà. mais kon ba ngay dem ci bëri combat bi lan nga yóbbu woon sax nga yóbbu wala nag. mais ma dem xeexu ma bëri bi arrangé ma ma bëri bàyyi xeex bi quoi. sa jël bi dafa gaaw trop. dafa a yomb lu tax lu liggéey la rek. ikir yi rek boo fi nekkee da liggéey moom moo ñu yóbbee loolu yëpp mais ba fi nekkoon di na du bu ñu demee duñ si man dara yaa moo la may loolu. liggéey mooy maye quoi fii moom da gars yi dañuy liggéey moo dëgg yàlla coach yi duñ la may dara. Uh-huh. fii Malick ngi ñëw entraînement waaw. est-ce que bu amee combat bu leen di jàppale ñu war a jàppale. oui mu ngi mu ngi siy jàppale ñëpp baa ngi siy jàpp mbër yëpp. bu amee combat am boo yëpp yëpp baa ngi siy jàpp dëgg yàlla. ñu war a a bëri ay mojj xam nga yàlla may leen ndam. Seck Ndaanaan xam nga booy yëf ñu war a bëri nit yàlla yàlla may ndam quoi. ñi amagul combat nag yàlla may leen combat. waaw ñu ngi may wax ay adversaire ay jëlle la may wax ay nëkkëreel la mais. ah nëkkëreel mais mën naa bëri ñëpp ñooñu quoi moo tax may xaar. non su dee ma ko sax si defet la jógee. te saa yi bëree ko ku jógee si defet ma quoi. ah mbëri si kaw rek. Mour Anta ak fi Yékini Junior ak fi amaguñ combat. Mour Anta Yékini Junior waaw. Diène Kairé amaguñ combat samay morom lan. waaw ku si ñëw ku ñëw ma bëree yow de. Uh-huh. ñoom ñett ñëw ku si am baax na. ku ma si gars wax ma jël ko. Ah, combat la Mour Anta combat la Yékini Junior combat la.

a moom li mu li mu li man laa man rek man tey mën naa bëre mën naa xeex gaaw naa boole si te ñàkk ma doole. Uh-huh. mais Quench kan Quench Quench. non Quench maa moom duñ bëre quoi defe naa si la ma yaakaar duñ bëre quoi non non. non bu duñ bokk sax xam nga doon na nit ñu jege yow quoi moo tax. yow pas lébu yi sax. ah su ma mënoon daan mën naa bàyyi bëre boo mënoon daan Yékini Junior mën naa bàyyi léegi léegi xool lu ma def. kooku oh, musul diis. musul diis musul diis. waaw yow moom mooy musul barki yàlla musul diis. Yékini Junior euh, Modou Anta. moom ñu ma si mënoon naa bàyyi. ko bëgg a xam. dafa ah. nga teg na ma la ñu xayma Modou euh, sax barke Seydina Mohamed yëngal mënuma kaa def bu ma jëlul léegi day gën a métti si moom rek te mu ma jël beneen yoon ma daan ko mu jeex tàkk. Ah. Ah, non bu dul taay sax dama xam dama xam sumay qualité moo tax yamuñuy qualité maax moom waaw kay oh, oh, oh, maa ko dàq bëri maa ko man maa ko ëpp doole waaw ah, kay. moom mooy moo daan yëpp boo def jën moo gën a métti bëree moo daan. jën kenn moo gën a ah. xam naa ko parce que maa ngay seetaan bi ma nekk booy laa commencé seetaan ba maa ko fekk kafi kay dama war ma rek ma daan ko mu bi nga moo daan tax Yékini si Diène Kairé jël jëleen avance bi léegi fi muy seddee si kanam day tàng de di ngeen di bëgg jël mu jafe leen jël leen ko léegi nag moo leen gën a gisee. waaw di nuyu waa Yoff bu baax nuyu fi ma dëkk di nuyu xam nga sama gars yi nga nga ma fekkal quoi sunu mbëri yëpp xam nga di wax ñaamagul combat sama gars yi yal na yàlla may combat muy Mor Yaba maanaa xam Malick Niang noonu amagul combat mais yàlla na ko yàlla may combat ma tamit mu ngi wàcc quoi yàlla na ko yàlla may combat. gars yi yal na leen yàlla may combat sama booy yi si ginnaaw xam yaa ma gën a xam. ah benn benn booy laa dum dafa yambar nag mais yal na ko yàlla may combat quoi. <laughs>